leçon numéro quarante-six masalikul jinaan wa minhuma bokk na ca mbindeef ya nga xam ne dañu lay yiir defab ñak sa digganteeg lu lay jural sa ngërëmal boroom yëxwa ak topp bànneex képp kuy topp bànneex loole da koy yiir ba du am ngërëmal sunu boroom wa saytaanun ak topp saytaane képp kuy topp saytaane rajim kay ku ñu jam topp ga muy topp saytaane def koy yiir def baraas ci lu koy jural ngërëmal borom bi fal yax na ngay mooy ndigalal kenn ku nekk ku lan kenn ku nekk min huma ci saytaane moomu ak topp ba neex del mooy lañu lay digal ñoom ñaar fi ak yaa nga leen di mooy rek fa yastaqim di nga jub xoj di am ngërëmal sunu boroom waccaxal na nga def xaqalaka sam xel xaahidal hawa muy omat sa bànneex lépp luy bànneex na nga ko xool boo ca gisee ngërëmal yàlla mën nga caa jëm boo ca gisee meram yàlla nga dellu ca ginnaaw wala tëx kiis bul jaawale nag top bànneex ak topp seytaane ak topp ngërëmal yàlla boo ko jaawalee day fa wii da nga cay amee xadaba meram yàlla xadabal mawra meram sunu borom rek nga cay ame alaa kay kon nag bu leen jaawale na sax ci luy jur ngërëmal sunu borom te wattandi ko ak topp seytaane ak ak topp fal moominu aji gëm yàlla allazi mooy ka nga xam ne yàkkoonu day nekk saan xiyaadi di boroom ak ommatu ilaa mawlaahu jëm ci luy jur ngërëmal boromam laa hawaahu déet muy ommatu jëm ci luy jur ak topp ba neex tuuba ajjana muy texe liman ñeel na jaamab yàlla ba nga xam ne yaquduhoo ma ngay ommatoo ay jaahu am xelam lirida mawlaahu jëm ci luy gërëmloo borom bi tey aji màgg ji ngoor doona hawaahu déet muy ommatoo ak topp ba neex amma rajimu ndaal seytaane kay ko ñu jam fa naxoosu bi noo ngi sàkku yàlla may aji yërëm ca ajjana ñamu gërëm mu musal nu ci seytaane moomee yàlla nu yàlla musal minhu ca seytaane wa min kulli muxaalifin ak képp koo xam ne day wuuteeg ndigalal boroomam mu liim te nara ommatu jëm ci ki yeddeel ndax li annahoo naka saytaane muharibun aji xare la fi kulli ayn ci wépp waxtu wala yu saalihu du nooyante kenn du maslante kenn du yëwanante kenn moom seytaane wala huwa amul benn yoon moom seytaane yaliin lu koy nooyloo waxtu wu ne mi ngi lay jëme ci lu lay jural meram yàlla ba nga alku yàlla nu yàlla musal ca moom wa kullama bépp jaamab yàlla boo xam ne yasartoxoo mujj nga ak saytaane sariha ci nërmil ko xaama mu jugaat moom saytaane ilayka jëmaat ci yow songaat la bil asa ngir lor la ci lu gaaw nag la koy def saa soo ko daaneele mu jugaat songaat la moom saytaane wala lewoo déet di ñeel saytaane maanaam saytaane amul soxloon seen soxla siwal muhaaraba lu dul xaranteek yow ngir julal la ak dem sawara amul seneen soxla sudul loolu moom saytaane moom daal day xare këb julit rek ba keroog mu koy nërmeel sawara kon nag yow julit bi na nga fokk te góorgóorlu te wattandiko saytaane seytaane daal day xareek li kulli aabidin ñeel bépp jaamab yàlla buy jaamu yàlla seytaane day xareek yow bilaa mu jaana ba tey du soranteeg yow toujours mang lay song di la jëmale ci luy jur meram yàlla moom seytaane yaamuruhoo day digal jullit bi moom seytaane bi tarki ci mu bàyyi jaamu yàlla ga ne ko yàlla jërta jaamu bàyyil noonu rek bul jaamu yàlla yërmandeem yaatu na jaru ko loolu la la seytaane ji jëkk a digal su ma in topp nag su fekkent ne jaamu yàlla bi bañ na loolee ko seytaane digal di jëfe ak jaamu yàlla bu loolu amee amaraho seytaane daal di koy digal bi ajalin ci mu gaawtoo ko ne ah lii day julli da yomb na ñu ngi naan juróomi minute la waaye ñaari minute sax baax na gaawal këpp këppal ko rek génn ci seytaane loolee la koy digalaat ne ko gaawal gaawtoo ko ngir mu gaawtoo ko li kay yoxil ngir rek jaamab yàlla ba xëtt ndigalal sunu boroom ba seytaane xañ ko ngërëmal sunu boroom saytaane dinay fexe noonu bu loola sottiwul maanaam fa in aba bu dee jaamab yàlla ba bañ na loolee ko saytaane digal di jëfe jaamu yàlla ga nam gën a selle seytaane ñëwaat amara daal koy digal bi riyaa ci ak ngistal saytaan ne ko ah kon nag yow nag sa jëf yu sell yi dee ko wax ñépp di ko dégg de ko dee ko dee ko toqal ci noppi nit ñi ñu di ko dégg ba mujj nga soof leen xamul ne moom nit ki buy wax loolu day mujj soof nit ña seytaane da koy naxe noona ne ko dee ko wax del wax ni ngay jaamoo yàlla nit ka moom du ca xam dara te bu ko defee nag ngistal googee ma ko digal ko defee jaamab yàlla ba nag bu dee daa gàttam xel mu nekk fay ngistal ba am meram yàlla kon seytaane moo ko digal ngistal loole fa in najaa bu dee jaamab yàlla ba mucc na ca pexey seytaane yooya fa in najaa min saaka bu jaamab yàlla ba góor góorgóorloo ba mucc ca pexey seytaane yooya bil ixfaa i ci làq jaamu yàlla ga bañ koo def ak ngistal seytaane ñëwaat daal koy songaat amaroho daal di koy digal bil uj bi ci aawo ne ko ah fi ne nag de yaa gën gaa yi doo seen morom yaa leen gën a kowe daraja yaa leen gën yaa leen gëni mbir yaa leen gën le yow doo seen moroom daal di koy digal ak aaw ba mu jàpp boppam teg ca kaw jël moroomam yi yëpp teg leen ca suuf seytaane dinay doxale noona fexe ay pexe la su ko defee mu dal di koy digal ak aaw su ma hëkk sa topp nii ma lay wax daal par benn benn yii daal lay naxe jaamab yàlla bi moom seytaane attaa yoxila sëhiya ba mujj jaamab yàlla ba seytaane dina ko nax ba xëtt jëfam ya ba mujj moom mu mujj xëtt ndigal ya kon yow jaamab yàlla bi raahi na ngeen sàmmonteeg almaxasa jàppwaay ba xam la ngeen war a jàpp ak na ngeen ko war a jàppe ak na ngeen war a sàkkoo ami ngërëmal yàlla sëriñ Tuubaa na faraqiban hu del fugloonteeg ku la waxtin ci wépp waxtu wu nekk wa zaman ak ci jëpp jamono ju nekk bil hër bi ca xareek moom wa difaayi ak di ko jiñ ba du la yàqal dara kay tux faa ngir ees fegal la almihan coono yomal xiyaam del xarek saytaane ba du la mënal dara fa daafi hën hu del jiñanteeg moom in ata njéem dikkal na la mu was wisaa di jax jaxe sab xol ngir bëgg laa xañ ngërëmal yàlla yow it na moom yow jaamab yàlla bi bi sikri rabbina ci ngay tudd sunu boroom di wax ay turi yàlla allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi yooyu boo koy wax rek seytaane day arrière loolu doo nga mën a daaneel seytaane amut amut beneen arme waaye booy wax kaddu yooyu mu ngi mel ni yaa ngi koy tiire ay bal muy daanu seytaane tur yàlla moo koy nërmeel kon sëriñ Tuubaa nee na del xarek moom dee ko jiiñ in attaanjim dikkal na la mu was wisan di was wasal maanaam di jax-jaxal sab xol bu la seytaane dikkalee ngir jax jaxe sab xol nanga ko jiiñ bisikri rabbinaa ci tudd sunu borom takkun kon nga nekk mu xaddasa di aji sell wa minu bokk na ca na koy jëñee was bi rabbikal karim ngay ñaan sunu borom mi aji tedd musal la ca moom seytaane feek yaa ngay muslu ci saytaane rek di ñaan sunu borom musal la ca moom tanju kon nga mucc isan boobee min makrihi min makrihi ci ay pexeem al azim yay aji mag pexe yu rëy la yor di ko songeb jullit waaye del tudd yàlla di wax a'udhu billahi mina saytaani rajim boole ci turi yàlla yu mag yee nga di ko wax di ko awanti saw làmmiñ yooya dong moo la mun a musal ci saytaane feek yaa ngay tudd yàlla nag di nga mucc ci saytaane yàlla nu yàlla musal ci saytaane